waaw laataa may nuyu mbokki Aïcha di nuyu ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal plateau euh, mbokk téléspectateurs yi di leen wax ni que namoon naa leen on s'est euh, bu ñu gëj a euh, gisante yàgg na depuis vendredi donc di leen nuyu bu baax a baax di leen wax Aïcha su baaxee rek comme ça ñu mën a dem ci. ci buzz yi dinañ ci ñëw mais laataa boobu ñu dalal Keyna mu ngi ci plateau bi Keyna nuyu nañ la. ça tu vas bien. Pas ah, tout à fait, voilà. mais ça va. <laughs> J'espère que. Ça se voit, ton visage est trop pâle en fait. Ouais, c'est ça. Est-ce que kii wu ma. tooy tooy dama tooy. jëlal buy bisaab ak ngeer mm. ak kel ak xasum loodo <laughs> naan ko ma naan ko <laughs> ma wàccee raa ko wëri tay si marché bi nuyu naa leen yéen ñëpp namoon naa leen mais aussi nuyu naa téléspectateurs yi ñuy seetaan di am mbégte bànneex di jàkkaarloo yéen Aïcha jàmm kay naa ñu ànd ak Asia dans la rubrique les buzz du net ñu euh, dem ba Saint-Louis euh, benn euh, souci bu fa am boo xamante ni diggante àtte ba ñàkk bakkan ndax ki nga xamante ni rek moo di benn xale bi jigéen moo doon euh, xeex ak benn moroomam dugg seen kër jëli paaka am benn xale bu góor bu toll ci vingt ans ci âge Euh, ñëw di leen àtte euh, ki nga xamante ni nag moo demoon seen kër di jële ji paaka euh, pour xeex ak moromam boobu nga xamante ni moom la doon xeexal xale bu góor bi di leen àtte mu jam ko ci nàq ba finalement ki nga xamante ni moo di xale bu góor bi dafa génn àdduna ci lan àtte lu ñuy naan ay du yam ci bopp boroom mm. moo dal ki nga xamante ni rek moo di kii yoroon paaka bi di xeex ak moromam bu ñu woowee police nag jël na li nga xamante ne moo di corps bi teg ko ci loxoy sapeur pompier Mouride euh, ki nga xamante ne aussi moom moo euh, jam moom it euh, mu ngi ci loxoy yoon kii doon xeex it yóbbu nañ ko pour entamer enquête boo xamante ni c'était pour c'est pour voir qu'est-ce qui ci li nga xamante ne moo diggante ñaari xale jigéen ñi ba ki nga xamante mu ngi ñëw di àtte Aïcha ñu jam ko ci mu mujj see ñàkk ba kanam oh, waaw xam nga àtte xeex moom dafa nekk risque mm. parce que lu nekk mën na see mu nekk loo xamante ne lu metti loolu la buñ ko doon boo àttee fa la sa bakket dem yaakaar naa day romb dem xeex si boppam moo baaxul nañ bàyyi. seytaane rek xam nga seytaan dafa bëri mm. doole. ba mooy loolu moo tax lu waay def rek jéemal xool nooy maîtriser sa bopp parce que di nga entamé dara mais après doo xam fan lay mujj day mm-hmm. dégénérer mm-hmm. ndax euh, ñii di xeex sax yaakaar naa ba ba bañ jameekee ñoom dinañ mujj fàtte. seen euh, seen xeex boobu. donc lu euh, waay di def rek nga jéem a am maîtrise ngir bañ a yegg ci yenn excès yi assi ñu jàll ci beneen info ñu ci beneen info Aïcha euh, ñi nga xamante ni ñoo di Lionceaux yi après seen victoire euh, dañoo def li nga xamante ni rek moo di seen coalition di fecc li nga xamante ni moo di Baara Mbaye ñu dem seetaan yi li nga xamante ni moo di seen mbégte bi ñu am bay fecc fecc yu neex yooyu ah, Taki, urat, taki, taki, Aïcha mu doon mbégte boo xamante ne wax dëgg yàlla romb na sax feccu baara mbay ndax euh, bu ñu euh, dóoree 3-0 euh, la ñu dem avant ñu yegg seen vestiaire surtout ñi ko dóor waaw bu ñu dóor 3-0 yi Kajoor ah ñoom kay. ñooñu ko jox ñoom baara mbay bi ngeen gis sax waaye am na beneen boo xam ne ñoom ñu ngi doon fecc naan naar du ñu yàpp. naar du ñu yàpp <laughs> comme que dañuy jaay race. c'était un bon signe quand même. parce que que euh, Sky Said moomu mu am benn signe ay signes yoo xam ne. ñoom bi ñuy dugal sax ñu ngi def nii. di on a droit dépasser quand même au tollu ba vingt troisième euh, deux mille vingt trois ñuy wala ay xénophobie moom vraiment. ay ayca day gën a neex rek ndam rek. mën nañoo fecc de xam naa. xale yi. alors fu ñu dem. ñu euh, dem ci euh, Sa ak Reug Reug bu ñu amalee li nga xamante ni moo di seen combat boobu amoon euh, dimanche ki nga xamante ni moo di Reug Reug nag ci li nga xamante ni moo di ci biir géew gi dañ ko jox victoire ba tax rek ki nga xamante ni moo di Sa Thiès dafa bind record Aïcha dem ci li nga xamante ni moo di yoonal CNG ba tax rek ñi nga xamante ni ñoo di site internet yi dañoo wax ni Sa Thiès waa CNG jox nañ ko li nga xamante ni Mm. mooy. recours bi day xaar recours bi waaw fekk 48 la waaw mais c'est waa euh, ñi nga xamante ni ñoo nekk ci internet bi dañoo bind ni que CNG. Mm-hmm. dafa jox ki nga xamante ni moo di Sa euh, victoire bi mais du dëkk dañ ko démentir mm-hmm. ñi nga xamante ne ñoo di euh, CNG dañ leen jox un euh, un de waaw de 48 heures c'est-à-dire demain la ñu war a joxe li nga xamante ni moo di euh, verdict bi voilà ba tax ñu def ci benn vidéo Aïcha ñu dem seetaani ko ñëwaat ci plateau bi d'accord il a deux recours yu ñu déposé benn bi moom xam naa cette actualité muy Sa Thiès contre Reug bi la le cas de Sa Thiès déposé nañu recours que la commission règlement discipline va vider ce dossier très prochainement donc dina ko vider ci ci délai yu gën a gaawee quoi donc voilà li ñu mën a tënk ci réunion tey bi c'était une excellente réunion bu dem bu passé dans de très très bonnes conditions waaw y a eu deux recours yu ñu déposé benn bi moom xam naa. Euh, voilà Aïcha euh, mu doon loo xamante noonu joxe nañ li nga xamante ne moo di seen euh, kàddu bu mujj di xaar rek suba incha allah ñu mën a joxe li nga xamante ne moo di verdict ñun ñëpp suba la xaar waaye site internet yi am fit bind ne Sa jox nañ ko victoire ñun fan ko teg ka jox. xam nga source yi parfois mooy mooy li ñuy liggéey bi ñuy ñun nag. personne n'est à l'abri ñun ñii di di parce que parfois di nga gis koo xam ne da da dafay nekk ku ku ku am tur koo xam ne moom moo lay woo wax la yow tu te dis ak fi mu toll ci réew mi warul mën a am malhonnêteté tew di ma wax lu dul dëgg. parce que Seneweb di ko wax ngay wax. daa mënul maandu ba ni ñuy war a joxe. verdict mais mais mais nag maandoom boobu moom moom c'est fait sciemment nag parce que dafa am fu mu far. parce que Seneweb bi ko fësal ñoom ba ñu waxee ki ko def ñëpp xam nañu ne ci camp wu Balla gay la bokk. te pourtant c'est pas n'importe qui dans le, le le milieu du sport dans dans le dans dans le Sénégal même dans dans sa globalité. donc kooku noonu yow tey ay Aïcha bu la woon démb ne wax la tey boo ñëwee di nga ko wax te parce que. du ko wax. Euh, non non c'est-à-dire euh, voilà foofu laay waxee cest ma dire man nga ko bañ a wax fi may waxee mooy loolu voilà loolu mooy wax ji cest xam nga ma n'importe qui bu ma ñëwee wax man dinaa mën naa dem jël sama temps dem recouper mais am na ñoo xam ne déjà moom mi ngi ci milieu bi euh, kilifa la res kooku bu la waxee rek da nga koy jël comme agent comptant facilement mais maintenant nag am na ñu gën a rigoureux dem xool mais tout message bi mooy balaa ñuy bind nañu vérifier Kajoor mm. c'est pas que luñ la information ñu la passé rek boobu nag la ñu defee parce que bu doon journaliste sportif lañ ko def xam nga boo xoolee site bi mu génnee Euh, peut-être am na ay journal sportif mais c'est pas un site spécialement sport mais bu fekkoon sunu làmb la. Mhm. wala wala wala wala wala. sport wala dala war a wi sport ñooñu ay spécial sport lañu du ñu yem ci loolu donte sax kilifa nga dañuy ñoom ñooy jël seen parce que ils sont en contact ak waa CNG. ñoom dañuy woo CNG ne ko lii ma dégg lan la. c'est ça en fait la différence. teel rek nga ne rajax. ñu <laughs> dem Sa Thiès nag moom Aïcha. comme ni koy waxee euh, il a aussi le temps en disant que j'ai battu euh, j'ai battu euh, Reug Reug ko na yàlla. ñoom ñaar ku ci war a gëm yàlla léegi. yaakaar naa <laughs> naa est-ce <laughs> moom moo war a gëm yàlla. ba jox nañu Sa Thiès victoire bi tey. ni mu waroon neexee du ko neexee. Hmm, hmm. parce que il suffit nga jóge ci géew bi. xam nga ñu jox kee victoire kee dem. et puis deuxième acte bi ñu daan la ba toog sa kaw. voilà tamit bu leen ko fàtte. neex neex bi day am day day day day acte bi quatre appui la day def day des ñambaxtaan daal ñambaxtaan gi day des. dafa lâché wu ko deuxième appui bi li mu daanu noonu dafa lâché wu woon boo sentir ni victoire. foofu da ngay sentir ni day na waar alors on attend de voir. ndam daal sa sa géew ba ñu yëkkati sa loxo. nga jubilé. on attend de voir demain pour y pour y revenir revenir plus plus amplement ah. waaw jeex na. ñu dugg ci beneen tempo dem seetaan yi ki nga xamante ne moom di Bébé Bass ñu wàcc plateau. ayca. Aïcha lu neex. sa jëkkër di la woyal nga taxaw di fecc. luy fëlaale di sànneek ah en tout cas c'est une très belle chanson de Pape Diouf euh, donc Superman Superman la wala Super Love. Super, non Superman Superman Superman Love. Superman Love. Love très belle chanson waaye. Ouais. merci beaucoup Assi. merci à jaajëfal nañ la namoon nañu koy naa ak ay astuces am léegi léegi rek mu dikkaat ci plateau bi. 9h25 minutes ñu daal di dugg nag ci astuce su Keyna yi Keyna tey lan la ñuy waxtaanee.